Bienvenue sur Salam Vision. hello ladies and gentlemen asalaamaaleykum les gars asalaamaaleykum à tout bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay comme chaque jour et comme toujours c'est DJ Big xale bi yaayam yaakaar l'homme qui n'a pas peur d'avoir des cœurs le seul et I am the future of the world people je suis l'avenir de tout un peuple jeex naa leen bu baax di leen jox seen wàccuwaay tey nag comme toujours on est à Malibu ici ah ñu jëm lu rëy di waaj lu rëy muy combat boo xamante ni ñëpp koy préparé muy Balla Gaye Boy Niang c'est le combat de l'année muy xewee diggante Guédiawaye ak tey nag ñu ngi géejawaay te bu subaa ñu ngi Pikine parce que combat dañu ko bëgg a dund ak yéen dund ko ak ñi nga xamante ni ñooy supporters yi tey ñu ngi Mali dañuy wàcc ci géej gi ma ànd sama caméraman ah ñu àndandoo dundandoo gisandoo laaj ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa géejawaay nan la ñuy préparé combat bi ak lan la ñu nar ci combat bi waaye nag ak lépp lu ji mën di am nangeen xam ne lépp Sénégal la c'est le Sénégal kiy gañ c'est la lutte kiy gañ diggante Pikine ak Guédiawaye pour man jàmm moo ci war a xew jàmm moo ci war a am kon na naay nay kul parce que loolu la ñu woote ah kon nañ àndandoo gisandoo dundandoo avec DJ Big let's on va continuer l'affaire comme on vous l'a dit ñu ngi leen di ziar bu baax di leen jox seen wàccuwaay ñu toog ak benn jeune boo xamante ne nii xamaguñ kan lay supporter ci combat bi nga xamante ne nii c'est le combat de l'année c'est un combat boo xamante ne nii Pikine ak Guédiawaye la dina mel ni tukku sa bënn saañ ba déer frère combat Boy Niang loo ci wax Boy Niang mënul daan Balla Gaye ndaxte lu lu war a daan Balla Gaye mënu ko bëre ñëw na jour bi di ngand ngandal kaw Balla waaye mënu ko daan fii ba suuf ça veut dire que yow Balla Gaye nga faral. Balla Gaye laa faral te biir Pikine laa dëkk. eh yow waa Pikine dañ lay fàtte. <laughs> mënuñ ma dara man seul Balla Gaye seul ak Sa Thiès. Eh, pourquoi Balla Gaye yow da nga dëkk Pikine pourquoi Balla Gaye. Balla dafa mën bëre nangu bëre te juddoo si bëre loolu la. loolu moo tax yow loolu nga ne Balla Gaye. waaw. xam nga fit de xam naa ni. déedéet du fit sax dama da Balla Gaye maa neex daf maa yàgg a neex. mais boo boo ñaa daa mën a bëre de boo ñaa fa am doole. mënul bëre mësul fekk si benn mbër <laughs> sànq dégg naa nga xaw ma Boy Niang comme Lac de Guiers quoi yow la foo foo teg loolu. Boy Niang comme Lac de Guiers yow Boy Niang da ngaa mës a seetaan combat mu fekk si mbër xanaa ba bàyyi def bëre ba lii mu jéem a mbër bi ju mu daan ko. Eh. xoolal contre Sa Thiès Sa Thiès moo mu daan ko foofu nga war a xam ne mënul bëre. Eh, eh, la loolu lay wane nag yow boobu dafa mën a bëre yow loolu nag war naa wane boobu dafa mën a bëre. deux mu essu mu essuwee yëpp. <laughs> mais mais mais mais il a dit que ci combat lu bëri. si lay wane lu bëri <laughs> mënu kaa wane ndax Balla Gaye du ko may lool te nee na une la ko may. su ko fekk sul mu fekk si ko. ñu dem si kanam nga. mais lan moo tax Balla Gaye ñëw def tekki nii Balla Gaye xamee ko dafa mel dafa ragal booy bi de. ragalu ko de da kay napp si xel wan ko xoolal maa yow du benn. sama <laughs> booy bi nee na Pikine la dëgg ko yow bu waay Pikine yow dinañ la ñuulse. waaye dañ moo mënal dara ba loolu lañ ba dara. léegi si da Papa Sow. si da Papa Sow loolu maa ngi si da ba mu jeex taax ay boo ko boo xam booy a gëni fi lañ lay fekk booy a gëni eh. ñoom xam nañu baax sama koñ la ñuy jaar sama alaya ah. maa ngi dëkk Pikine saf baar amul lu may tiit amul lu may ragal booy ma xam nga ne man Pikine laa yeewoo Pikine nga yeewoo Pikine rédit man Pikine laa yeewoo tey moom bu tey moom di nga di nga xatawal xaañu te xam ne dinaa andi ma fi yaayu ñu ñëw fekk la sa gaale booy ñaayi de booy ñaay bëri ñemewuñu ma ñemewuñ la man seul waaw ah, baax na léegi ba jour combat ba jour du yaa waxoon yàggatul dinañ ci dara laay <laughs> gars yi wool wool ma sa combat bi na góor a gars yi borom njaabu soxor bi gars yi <laughs> gars yi ah, nga ne. maa ngi lay ziar frère. yokk ziar. yaa ngi cool. lépp ndax njaabu soxor na. Eh. barki Serigne Bamba. pigi na ko moom. Eh, eh, kon ça veut dire que nga faral. ah si. bu yow sa njaabi ak sa njaabi nu mu soxoree nii ma jaamu ne booy taalibe Balla Gaye pire. Balla Gaye Balla Gaye Balla Gaye tout tàngal <laughs> mais booy Balla Gaye moom ma Boy Niang foofu. Hmm. mais magee ko leneen. ba pare ba boo xoolee palmarès ñoom ñaar du combat de. lu tax du combat. wala palmarès bi. Hmm. léegi koy daan. Boy Niang da koy daan cent pour cent. <laughs> ñaata minute. Boy Niang une minute la ko may. naa la xamal benn affaire de. Euh, waa géej waaye nee na ñooy feesal stade bi yéen bala ngeen a génn seen i kër stade bi fees. ñun sept heures ñu ngi biir stade. la mooy yow kii wér na. yow kii c'est dara laal waaye géej waaye nañ ñoom fa la si stade bi la ñuy fanaan faf <laughs> ñu ñi dëkk si stade bi nag <laughs> man mi dëkk si ginnaaw stade bi nag man ah, mais man xam naa ne waaye géej waaye eh, dañuy teel a ñëw de mais combat bi dina bëri kii de dina bëri coole ñoom xam nga ban heure la ñu ñëw ah. dañu bàyyi ba grand combat bi dem bay taxaw ñu doog a ñëw mais la moo ñëw bi rek la moo tax booy ñaa ñëw di di kii Balla Gaye mel ni ku koy napp lu xew yéen boobu pare ngeen de dakaay napp wan ko ni du bandi bandeem xaayul sax loolu nga gis. barke léegi léegi léegi léegi Siteu Siteu Papa Sow. Siteu Papa Sow maa ngi ci Siteu. <laughs> léegi Siteu Papa Sow nga ne yaa ngi ci Siteu. waaw waaw pourquoi loolu. wala njaal bee tax. non. waa jaamu gën nag maa jox ceen nag. Eh, nee na waa jaamu gën nag ngaa jox ceen léegi léegi buñ boole woon tey Siteu boole Boy Niang koy faral. ah Siteu ak Boy Niang. waaw man maa ngi ci Boy Niang. <laughs> te daal di dugal de barki Serigne Bamba mais lu tax booy bi ngeen àndal ne moom Balla Gaye quoi. kan la. booy bi gëm na Balla Gaye de boobu da ko bëgg. eh booy eh ku nekk na choix nag. yàlla kanaara la. mais yow daal nee nga Boy Niang daan. Boy Niang daan. ci ay ah. seconde. waaw ah, kon nekkal si jaamu sëñ Ba. na xamu. ça va. yaa ngi cool. sant kay la. nuyu naa la ci loo ne. waaye maa ngi nii. ah Siteu la. pourquoi Siteu. ndax Siteu mooy ndaanaan bi booy jaamu nga de. léegi Balla Balla Balla Boy Niang le combat de l'année. non loolu moom Balla Gaye da koy rek. booy yow daa mel xanaa géejawaay nga dëkk Malibu. waaw may fii Malibu fii kay. kon fii géejawaay moo moom. waaw. kon Balla Gaye moom moom fii. non Balla Gaye da koy yóbbu sax. na ngeen na ngeen di préparé combat benn supporter yi. ñu ngay dañuy toog xaar kii nii rek. booy waaw. mais nag combat bi nag waroon ci violence ambiance la ñu woote cent pour cent nay naaj la ñu woote quoi kon nay daa ñëw di. ku muy tëb mais pour man mais pour man loolu loolu ñoom ñaari mbëri la la concerné quoi pour man yéen seen seen seen dafa war a nekk ci biir ci stade bi dafa war a nekk yéen en tant que en tant que jeune ngeen toog benn place xam nga yem bu combat bi jeexee ngeen ñibbi bañ a xuloo bañ a xeex quoi pour man. non loolu la sax mais xam nga rek day ñëw foofu indi ambiance bu mag mais boo ñëwee lu mu ñëwee fii août bës la quoi si nga. mais ngeen bàyyi ko Boy Dieul bu fekkee Boy Dieul bëgg mais yéen teewul supporters yi boo ñëwee ngeen xam ne vous êtes des jeunes et que yéen bi yéen la ñuy kon ngeen ngeen bañ a def loo xamante ni dafay day jur coow wala day day jur ay gàllankoor et parce que ñun xaaruñ ci xaaruñ xaaruñ xaaruñ ci xaaruñ yéen ci loolu quoi ñun dañu bëgg jeunesse boo xamante ni ils sont conscientisés jeunesse boo xamante ni du dox si dalay caaxaan day ñëw def li mu war a def après bu jeexee jeex na parce que sport la rek ah. diggante Guédiawaye ak Pikine pour man benn la kon coow waru ci am. non coow du am sax loolu moom benn la waa. yéen a wax loolu. waaw ah baax na kon ba jour combat ba. waaw incha allah jaajëf waay. dina comme on vous l'a dit ñu ngi Malibu toog ak ay jeunes yoo xamante ni Guédiawaye fii lañ dëkk fii lañ yoroo fii lañ màggee sans plus tarder leen di nuyu di leen jeex laaj leen ci combat bi nga xamante ni c'est le combat de l'année diggante Balla Gaye diggante Balla diggante Reug Reug Sa Thiès sans jox kenn koo xamante ni nii sama wet frère nuyu naa la waaw ah, maa lay fay xoolal bu fekkee da ngay ñu bàyyoo. maa lay fay maam. jaar naa la ci loo nekk. sant suñu ci waa wér. Balla Gaye ah, Boy Niang. Balla hmm. waa di ñaan yàlla combat bi gaaw essi nag. di wax suñu mbër mu teey xam boppam xam ne booy bi xale la ko te waaw booy bee bëgg mooy wut si. mooy wut si ah. bu ko may dara moom na ko baay wax jeeg yëpp. Hmm. waaw ñun moom affaire moom xalaat ñàkk la quoi. pourquoi Balla Gaye ñëw ne tekki ci combat bi lu xew. waaw c'est normal parce que booy moo bëgg moo laajte hmm. ñun instant yi Balla Gaye amatul leen loo xam lu muy def si làmb pour ay wax ak yooyu. sa wax Boy Niang dafa dafa dafa nekk ci yoon dafa am doole jamono ji daa mel ni de. non Boy Niang amee doole jaaxaluñu parce que ñun ñun fi ñu toll jël liñ jël Boy Niang dépassé na ko hmm. amagu ko hmm. te mooy loolu quoi xale la daal moo bëgg na tey jox adversaire am waaw. cër bi daal Reug Reug Sa Thiès. Reug moom du yomb. combat bu dina mel ni tukk sa bënd saañ ba réer du yomb de. saañ bi du réer. lu tax saañ baa ngi géej <laughs> booy na ngeen pare nag mais xam ngeen ne waa mais xam ngeen ne boobu booy caara yi duñ maye dara ci combat bi nee na tane nañ dum jër ñu jënd ko. non booy caara dañoo ay caara géej yi géej gaay nii ñun si géej leen dëkk. ñoom mais ñoom ci géej gi la ñuy yeewoo. waa ñun tamit si géej lañ yeewoo. du yomb de foo ñu fekk. ci géej gi waaw mi ngi noonu mais du yomb de. dañ koy ah. waaw. yow gëm nga ne combat bi ci ñaata minute lay jeexee. combat bi du yàgg du yàgg bu bëree rek ngay daan. bu bëree bu xeexee ñu duma ko ba mu jooy. <laughs> booy wax supporter la wax mel ni de. non non du wax supporter de. Ah, kon baax na a bàyyi ah, lay fay. ci loo leen nekk. nice. a ah, lool du komba pour lan du combat. non loolu loolu du dara si Balla Gaye. Eh. mel ni dajeeg man nii mag booy bi war a bëre loolu du dara si Balla. yéen pour yéen combat bi noonu la facilité quoi yéen yéen gisoo yéen Balla def tekki ci combat bi. waaw tekki googu nag bu bis bee booy booy ñaan noonu lay defee tekk du bëre du xeex. loolu nga gis. waaw Siteu Papa Sow. Siteu. Papa Sow. lool loolu du loolu dara. Siteu day jàpp rek daal léegi léegi saa gis rek rek. saa gis rek rek moom dina tar moom. ñaata minute ngeen ko may. rek rek rek rek rek ak moom. rek rek mbër la de kaamin. te dafa am doole. moo doole gi fii la ëppee nag. ah combat du def sax. yéen gëm ngeen ne da ngeen di daan. na yàlla. da ngeen daan. kay duma daan ko. waaw ah. ah. waaw ah, baax na léegi kon ba combat bi nañ ci xam dara. waaw xam naa combat ni la ñuy ni la waaye man pour man li leen jox conseil mooy que ni boo ngeen xam ne supporter moo leen fa yóbbu quoi tu vois te diggante Pikine ak Guédiawaye pour man xeex waru am xuloo waru am tu vois képp ku daan ñu xam ne yàlla moo dogal loolu et puis mu jeex waaw. nga ne suñu gel yi fi ay waay booy bu la waaw digin jàppee ba bàyyi la. les victoire yi jël sa xale yi ah. loolu <laughs> ngeen nar. xalaat ñaax la booy ñaax. <laughs> ragaluñ ko ah. géej ay kese. comme on vous l'a dit on va continuer l'affaire tey nag ñu ngi fii Malibu ànd ak ay jeunes yoo xamante ni nii ci géej gi lañ leen fekk frère nuyu naa la. dëgg lépp jàmm. yaa ngi cool. sant yàlla. reetaanal tuuti fii loo ñàng ñàng gis na fi ñu la gën a ñàng defal ndànk rek. non loolu yàlla dogal na bëgguñu booy géej waay yem ñu. tey nga ne géej waay. waaw dañuy xaar xanaa moo leen géej no am nañ géej kay. Zak eh, loolu fi def. am doole rek. <laughs> yow yow man léegi laa jël ay booy ñu naan xaw ma dañ leen daan dañuy daan booy ñaa ba pare ñëw doxaan seen i gel et tout tu vois parce que boo géej waaye dañu am fit. booyoo dañuy xaar wax rek la ñu mën. léegi boo ñaa boo ñaa Balla Gaye. boo ñaa Balla Gaye ah. incha allah Balla Gaye. non non laaj boo ñaa Balla Gaye. ah boo ñaa Balla ah xam nga rek buñ jaaroon ak ñoom rek. yow ñii ñoom yéen da ngay tiit de yow Balla Gaye ngay tiit. Balla Gaye tiit ko moom. barki eh. wallaahi les Balla Gaye du ma ko régleel man mu ndaw mi du ma ko régleel sànqoon ma la ak boo ñaa Balla Gaye day xaar. ñoom ñoom yow ñu ñu dañoo fàtte neuf yi duñ ko fàtte. doo fàtte lan ñoom duñu fàtte neuf yi. te dixième bi day mat. waaw ah, yow doo ma bàyyi yéen yéen a ngi nii yéen yéen yéen ponkal boo leen dugg am ngeen ci problème nañu waxee ne dëgg nag. waaw ah, yàlla ponkal boo leen dugg am ngeen ci problème. ban ah. ponkal ngeen daanagul. ah baax na yàlla baax na. non dañuy waxtaan man dama bëgg ñu waxtaan nga ne. ponkol bu ñu dugg am nañu problème ah jàpp leen loolu rek combat bi ngeen ñëw takk rajo yi di wax rek man loolu dafa ma jaaxal ah Balla mu njëkk a takk rajo yi moo non non Balla dafa ñëw ci signature bi noppi ba eh, eh, bu ñu waxee dëgg rek Balla daa ñëw noppi nag bu nag bu ndaw woowu moom nag bu ndaw woowu <laughs> nag bu ndaw nag bu ndaw boobu war a ama moo rëg rek non noo mu bàyyi wax ju bëri góor du bëri wax waaw bëri na wax saake rëg rek du ma si wax lu ma si wax ndax doo ci débat. combat boobu du ma si débat. waaw lu tax doo ci débat. du ma débat si ñoom. yaa ko tudd man tudd ma ko de yaa ko tudd. non dafa xam dafa bëri wax. kan moo bëri wax. saa kees moom kon yow boo ñaa lu mu def. ah boo ñaa deful dara. mais yéen yéen pour yéen combat bi si ña si ñaata si ñaata si ñaata minute bi la lay jeexee. ah loolu moom kaay kaay li ngay wax na solo nga ne. bu combat bi si ñaata minute la mën a jeexee saa yi nag taxaw dëggal boppam rek. non dama la laaj yow pour yow combat bi ñaata minute lay jeexee. ah xaw ma wax dëgg fa ñaata minute lay jeexee de. mais daal gëm nga ne di ngeen daan incha allah bu neexee yàlla. ba jour ba dinañ ko duma dinañ ko daan. yow loo wax sànq. Balla Gaye da ngay daan billaahi. foo ko teg waay ci ci doole la nga teg. billaahi da ngay daan billaahi. Balla Gaye da ngay daan di nga. da nga waaw ah kon nag ah teg ko si booñaa ñu ko dóor si booñaa ñu ko dóor rek ñu ko dóor Balla Gaye kon neuf eh, boo bëggee nga teg ko léegi Balla Gaye da ngay duma léegi barke Serigne Touba Balla Gaye da ngay duma <laughs> daan ko Balla Gaye da ngay duma daan ko bilaahi ki day wax lu ko neex si doole wala ki day wax lu ko neex Balla Gaye du darum Balla Gaye jeexal boo xëyee saraxel boo gindee Balla Gaye daan booñaa boo xëyee saraxel daan bilaahi da ngay moom bàyyi miskilu xol bi moo mais Balla Gaye miskilu xol bi moo jeex biski xool bi moo jeex moo tax. du dara billaahi. moo jeex. biski lu xool bi moo jeex. biski di ban barke Serigne a Balla Gaye dangay daan ko billaahi. Balla Gaye du dërëm barke Seydina Muhammad Balla Gaye jeexal na da ngaa baax rek. waaye ba combat ba. mais mais bu man a bu man diggante Pikine waru ci am xeex waru ci am lépp lépp sport duñ ko def si li lépp si ah. préféré lañ koy def rek. Eh, mais waa Guèye waaye nee na ñoom ñooy fees stade bi de. waaw waaw da nga koy duy. bii waa Guèye duñ fa am dara billaay duñ fa am dara. da nga koy duy ba mu fees da nga koy duy ba mu fees. waa Guèye waaye gëmatuñ Balla Gaye Balla Gaye dafa am dara nga xam ne nii. Balla Gaye dafa am dara boo ñaaw mooy duy stade bi yëpp. Balla Gaye bul teg loolu. maanaam boo ñaaw buñ fanaan si wul duñ dugg stade. waa Guèye waaye buñ fanaan si wul duñ dugg stade. billaay mais moo fa ne yéen waa Pikine da ngeen da ngeen mere boo ñaaw non non merew ñu ko loolu làmb la. loolu làmb la woon rek xam nga rek mooy loolu noonu. ñu dugg ko ba non non. ah ñii dama mere boo ñaax barke Serigne Touba Balla Gaye yéen boo leen ñëwul doo leen dugg billaahi. boo leen ñëwul ñii bu ñëwul dugg billaahi. billaahi waaw kon ba comme ba. barke Serigne Touba incha allah. frère maa ngi lay ziar. Eh, delloo ziar. maa bu baax a baax. naa nii ci loo nekk. maa ngoon maa bi. ah ngoon man baa ngi rek ñëw si géej gi daaw yaa gën a xam laalante bi. géej waay wala Pikine. Pikine laa dëgg. ba pare nga ñëw bu géej waaye nag di osé di wax nii. waaw lu si ne. léegi Balla Gaye Balla Gaye Boy Niang. Balla Gaye Boy Niang man Pikine laa dëgg mais Balla Gaye da koy daan lool loolu du sax ay wax. waa Pikine eh. waa Pikine gaa leen wuyu waa Pikine gaa leen wuyu nga ne. Pikine laa dëkk wallaay Azim Pikine riiri dëkk mais Balla Gaye day daan Boy Niang. foo teg loolu. ah waaye suñu mbër bi ñaari combat ñëw na naan ñu day daan day daan musul song. ah kon yéen am na sànq. keroog daa arrière ba mëq miiru stade naa ko booy bi yéen da waa waa Pikine dañu mere jé dañu mere dañu mere Boy Niang mu ne ne mere nañ man pare naa si moom bu yaa contre Tafatine laa pare si moom si ay mbiram. Eh, booy mu ngi si yoon booy bi instant combat bi dafa tag rajo yi de. Balla Gaye kan la fi daan ah mais mbër la. sa ruisseau par sam <laughs> kan la fi daan kan. mais man li ma jaaxal mooy que ne yow Pikine ngay yeewoo Pikine tey ragal li ngay wax nii quoi. xam nga mbir bi lan la. mbir bi du question de Pikine de Guédiawaye mbir bi affaire de xol la. mbir bi affaire de xol la. xol nag ki si jiitu nag. jeex na kon yow Balla Gaye mooy sa mbër. dama koo bëgg. parce que Seydina wax nga ragaluma si dara. loolu andi Guédiawaye. du question de loolu man jour raa fi laa entraîné chaque jour. Hmm. mais Balla Gaye mooy sama mbër. Balla Gaye laay supporter parce que bu moo may man làmb du ma ko seetaan moom mooy tax man man ma kontaan si làmb. prix dip mu accéléré sa kaw yaa ma gën a xam waaw. libéré ay supporter Reug Reug Sa Thiès. Reug ah, Reug daan de. saa yu daa mel ni yow 100 pour 100 géej waaye mi ngay dund quoi ah, nu mu demee nii. lu tax si Balla Gaye sa bëgg. <laughs> mais combat du yomb de. barke yàlla laa lay tegal ni Sa Thiès tiitu ma ko benn yoon. mais du yomb de Reug Reug dafa andi doole. xam nga làmb ji daa ñoo xam ne ay mbër am ñoo xam duñu ay mbër fi la ñuy ñëw di tiital seen supporters yi leen teg pression bu dul jeex. comme kan kan koy gaaruwaale. non du question am na koy gaaruwaale. non si na ñoo xam ne dañuy teg pression di wax. de eh, guerre. tudd naa la de guerre rek. ay booja ñooñ seen mbëri si pression rek la ñuy seen supporter si pression dong la ñuy dëkk. Ah. mais boo faralee Ama Baldé. Balla Gaye. Ah. Sa Thiès. Ah. non doo jooy. ah am na ñu ñuy wooyee am na ñu ñuy wooyee neex a faral dimanche de xaw ma nag kan ak kan la man doxuma xaw ma nag kan la damay dégg ñu naan neex a faral dimanche. bu dee yàgg nga seetaan lamb. ah man xaw ma de. ma dugal de. man man ma dugal. bu dee yàgg nga seetaan lamb xam nañ kan mooy neex a faral. Modou Lo. Modou Lo Modou Lo neex a faral. Eh, eh, Modou Lo laa may gan na mu ngi a faral. ah pour man Modou Lo la ñuy du Modou Lo. suñu mbëri du bëri 3 minutes. du ko wóoru. Ah. mooy faral dimanche. na dem si ama na si ama dina xam ne mooy naqari faral xale bi day dox si kawam. mais combat bi ñaata ñaata minute ngeen gis ne combat bi day jeex. Balla Gaye Boy Niang boo Niang nee na day wax di fërërëri naan. une minute may fekk si nee na minute. maa leen ñaan loolu Balla Gaye da koy may une minute une minute la may de taxaw di ko déglu fii ba suba Boy Niang du jege. da nga du sax xàcc nii lay def nii nii. te dafay yaakaar ni dafay yaakaar ni bëri ji ay ay ay coflaay yi. waa ji day bëri lu leer Balla Gaye palmarès am da nga koy teg laa la ba mu commencé bëree ba léegi laa lay tegal ni amul combat bu nduroo amul loolu ndaanaan moo koy def ndaanaan ku lu ndaanaan dóorul kenn mu toog en tout cas mbot ñii mu lee xat day taloone sax di bëri taloone nii nii waay waay xale bi day tëb di jéegi mais mais mais boo ñaa wax na boobu am solo nee na lu ko métti woon ñëpp ci Balla Gaye la koy di jooy yëpp waa Pikine de nañ préparé gën a jiwaat. ku fee ma hello ladies on va continuer l'affaire comme on vous l'a dit ñu taxaw ak ñoo xamante ni nee nañ waay fii lañ dëkk fi lañ yaroo fi lañ màggee kon jotu naa ne ngoon Balla Gaye faral. yee loolu yàgg na loolu du tey démb la. Balla Gaye Balla Gaye Boy Niang. Balla Gaye Boy Niang Balla ñu Sa Thiès moo ñuy jablu rek. <laughs> lu tax Sa sa moo tax Boy Niang ñeme Balla Gaye ba di ko tëkku. loolu nga gis combat barki alxuraan loolu nga gis wallaahi fala dégg naa signature bi mu nekk fa naan xaw ma booy ñaa xaw ma saa li mu def fa fi mu jaaree rak fa lay jaaree mais la moo tax ngeen ñëw ci combat bi yarut loolu mënut a ne daa mel ne leen napp daa mel ne daa jël seen fit loolu mënut a ne day wax lu ko neex en tout cas da ngeen ñëw noppi Balla Gaye yow ay supporteram mais da ngeen ñëw noppi lu xew noppi lan mais ba jour ba mais Balla loo xam ne musu koo def billaay walaay ba jour ba boo ñaa dina daj lu musul daj combat bi yéen pour yéen ñaata ay seconde lay jeexee wala ay minute wala ñaata non ñun mbër lañuy déglu moog booy bi sax duñu egg sax deux minutes. en tout cas boobu nee na moo koy fekk de. bu ko fekk si sax dañ koy fekk si doful. waaye Balla du fekk ci combat bi non Balla du fekk ci noo bi. non billaay da koy fekk si. Balla fu muy jaay grand frère booñaa lañ la wax ay ñoom Mawlo daf ñoo yëpp. yéen gëm ne Balla instant bi am na doole ko yéen gëm ngeen loolu bu mën a daan booñaa. yaxee bokkul frère billaay wallaay. dama fee dégg ñu naan Balla dafa yooyu. xaw ma même bu liggéey su combat bi day daan waa ji. ba teg bu leen peur dégol ay ay misigan daa xay ci booy bi. Père Dégol dafa taxaw de yow xam nga Père Dégol day xaar ñu suñu papa a gën a taxaw fuuf nga am jaar-jaar si làmb. Ah. ñu fii lañ dëkk billaay walaay taalaay. Ah. moo mais kon kon kon yéen ja en tout cas waa Pikine nee nañ yéen boo leen boo leen yéexee ñëw doo leen am place. dañuy xaar. fa ngeen di fanaan. fanaan. boo leen fanaanul doo leen am place de. ñun fajar ñooñu fa. sax waaw ah, booy Pikine dañoo pare de booy Pikine dañu ne dañu toj mbaari mu naan ceeb stade bi rek duñ duñu yëg sa ay kaar. si ñaay bi la ñuy xuus. si ñaay bi la ñuy xuus dagg ñaay bi nii. ay waay ñibbi si di jooy. jooy lan. kuy jooy ci pour yéen benn supporter mooy jooy. non damay laaj quoi damay laaj kenn yow man damay laaj kenn moo ñibbi si di jooy. xam nga xam nga xam nga dem ci làmb ji di baaxu na mais jugee fa quoi jugee bi. c'est que ñun dañuy yóbbaale ambiance yóbbaale làmb ñaar yëpp lañuy booy bi nee na nee li métti woon ay supporter yëpp te supporter lam yëpp ci combat bi la koy fayoo. boo ñaaw Boy Niang day wax lu ko neex Boy Niang daa yab waa Pikine la yab si boppam Boy Niang si boppam. man gis naa fi benn boy léegi mu naan xaw ma Pikine la dëkk ba pare falal Balla Gaye ma gis fi ñoo xamante ne tamit mooy loolu en tout cas. jàkkaarloo wër ko. looy def. nañu ñu jàkkaarloo. <laughs> nga kooku yow lay supporté dana Pikine la dëkk mais moom Balla Gaye lay ah, supporté. waaw kooku mun nañu ànd. dégg nga mooy Pikine laa la wax ñu bëri nañu fi ay fans. ah déedéet Pikine Boy Niang moo ko moom. Boy Niang nan la moo Pikine. Boy Niang nga naan Ama moo ko moom. Ama moom Pikine. moo ko moom kay. xanaa loolu tax yéen waa Balla ngeen dem samp Pikine. xanaa loolu tax yéen ba yéen Balla Gaye dem fa dem ay ama yi nii. mais ay mbokk lañ mbokk yu jegentoo la. baax na yooyu nag baax na ay affaire am mbokk la ndax yéen yéen a war a la. luñ luñ bokk. luñ bokk mais seen seen maa ngi bokk. yes comme on l'a vu nii lay demee saa su ne avec DJ bi xale bi yaayam yaakaar l'homme qui n'a pas peur de voir des tey di ko gars yi dundee ñi ne nañ Boy Niang ñi ne nañ Balla Gaye ñi ne nañ Reug Reug ñi ne nañ Sa àdduna moo mel nii ñii dañuy bëgg kii ñuy bëgg kii waaye chaque jour comme li may wax Sénégal la c'est le sport qui gagne parce que lii buñ ko tëggee c'est parce que dañu bëgg jeunesse bi am ci loo xamante ni maanaam dañ dañ fay dem di daje pour kaf ak ree léegi nag loolu noonu buñ ko yàq buñ ko jël def ko ay xeex buñ ko jël def ko loo xamante ni nii ay arme de guerre la dañ ko utiliser di ci dund bànneex di ci dund mbégte képp koo xamante ni sa mbër daan na nga xam ne loolu la yàlla dogal parce que c'est Dieu qui décide waaye tamit képp koo xam ne daan nañ ca mbër nga ne tamit loolu la yàlla dogal yàlla mooy décidé waaye lépp lu ci mënti am nañ xam ne lépp Sénégal la parce que diggante Guédiawaye ak Pikine pour man warul am xiiroo warul am ŋaayoo ñu ngi nag tey Guédiawaye bu ëllëgee Pikine lañ jëm waxtaan ak gars yi xool seen yi nan la ñuy dundee làmb ji ak nan lañ koy préparé ak DJ Big lay demee saa di kontaan ci yen yéen ñi nga xam ne dañuy topp dañuy sago dañuy sidaan di leen jox set di leen ñaanal jàmm te ñaan jàmm jooju wala ngaan ba kontaan nañ ci kontaan nañ ci sur Salam